bunyu jappé euh, exportation euh, mangue la moyenne d'exportation euh, des années passées c'était 100 000 tonnes euh, en 2000 euh, en, en 2022 on est à moins de 20 000 tonnes euh, donc ci ci mangue moy liko waral nak moy dafa am dafa may gunor yo xamné dañuy yex euh dañuy yex euh, di attaquer mangue yi euh, ba tax yi nga xam ne foofu la ñuy exporter mangue bi muy euh, muy li ci gën a bari di Union européenne euh, ñuy ñuy ñuy tere suñu mangue di di ñëw foofu donc loolu moo moo diminuer exportation yi ba tax na euh, ministre de l'agriculture et de l'équipement rural indi convoqué réunion bi nga xam ne moom mooy tey fii ci ministère bi ak acteur yëpp acteurs filière mangue yi ndax ñu mën a waxtaan ngir ñu waxtaan ci euh, ci nan la ñuy tëralee ay pexe pour euh, pour mën a xeex euh, mën a xeex loolu ci loolu ñu DPV dégager benn budget bu un milliard deux cent deux cent deux cent mille deux cent millions ñu laaj nag xëy na ministère de l'agriculture évidemment dina accompagner dina accompagner acteurs yi continuer xex bi ndax lolu moy rôle am moy euh liggéeyam waaye laaj aussi acteur yi ñom tamit ñu def ci seen loxo euh, acteur yi d'accord woon ne euh, war nañ mëna mëna def ba 15% ci 15 euh, francs ci kilo bu nek bu ñu exporté loolu nag dina dina dina jur aussi contribution bu am solo bo xamné bi mëna a dolleeku ci li nga xamné li DPV mu koy def Euh, ci ci xeex bi euh, ñu démarrer xeex bi am yaakaar aussi bu buñ ko defee dina yokk euh, suñu exportation màng mu mu nga xam ne dina dina jàppale en tout cas producteurs yi ak exportateurs yi ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ci filière màng bi. xam nga li ñuy wax weñ dafa nekk lu Europe tuddee mousse de quarantaine mousse de quarantaine mooy suñu yóbboo conteneur conteneur vingt tonnes moo ciy ne. 20 tonnes, 5280 cartons là, pour 4 kilos. Vous ni contrôler, fele, comme ni DPV dit contrôler, là, contrôler le mango, vous n'êtes pas. Vous avez un échantillon, ti ti ti ti ti bir euh, conteneur. Si vous avez un échantillon, vous avez un échantillon, vous avez un échantillon, vous conteneur. Te xam nga lolou nga perte fayon nga lepp ba fay transport bi ba fay lepp mu ag fofu nga perte ko donc lolou nak motax mouche bi amul ben solution amul ben saafara lu dul xeex ko mu jóge fi te man na nekk ba léegi xam na nañu muus bi bu yeewu xam nañu ko xam nañu bii jur xam nañu bu dul jur xam nañu nu muy fanaane xam nañu nu muy multiplier xam nañu nu muy jamee ci mango bi xam nañu sax nu koy identifier bu jamee mango bi xeex rek moo des moo tax ñu war a engagé xeex